sécurité ay mercenaires ay doomu réewum Sénégal daal leen di yóbbu ci guerre bi nga xam ne moo am diggante Ukraine ak Russie yéen a kaay gi di l'Observateur ak Quotidien nee na en tout cas lool ñaawlu na bu baax a baax doxalin wii nga xam ne Ukraine ñoo koy doxalee yéen a kaay gi di la Soleil xëy xibaar naan ginnaaw ay jàmm njàng njàngale mi nga xam ne amoon nay jafe-jafe ba maara détaillé jamono ji li nga xam ne moo së joon lépp daan na ne nañu koy signé yéen a kaay gi de la témoin nee na njiitu di président Macky Sall moo fi xëyoon wax ne lu jëm ci wàllum njëg yi danañu ko wàññi waaye nag ñi nga xam ne ñooy commerçant yi ñoom dañoo lank ba tëdd sa naaj wa jamono ji kay gouvernement bu Sénégal mënaluñ dara ñi nga xam ne ñooy commerçant yi yéen a kaay wal fajiri xëy duñu xibaar naan ñu ab tànk dañu koy tàllal wala ñu bank ko ñi nga xam ne ñooy waa PDS jamono ji mën nañoo wax ne seen dara leerul PDS seen benn tànk bi ma ngi ci biir seen benn tànk bi ma ngi ci bitte yéen a kaay gi di Vox Populi ñu xëy fekk fa Ahmed Aïdara ak ñi nga xam ne ñooy ay farandoom ñoom nag nañu ñuy ñaawlu bu baax a baax opposition bi nga xam ne daal dañoo wor dañoo wor ci bureau municipal bi nga xam ne moom lañ doon taxawal ca ville bu Guédiawaye Ahmed Aïdara ak ñi mu àndal nee nag ñi nga xam ne ñooy waa Wallu Sénégal ak waa gëm sa bopp ñoo fekk fa nguudam bu baax xelam yoon nee nag ñi nga xam ne ñooy waa Benno Bokk Yaakaar nekk ca ville bu Guédiawaye di ay adjoint au maire ñooñu nag mënuñoo teree liggéey ki nga xam ne mooy ay dara ndax nag bu dee nag empêchement gars yi ñu ngi koy bëgg a def wala nag ñu absenté Ahmed Aïdara mën naa jël la nga xam ne moom la bëgg liggéeylu wala la mu bëgg a deflu defloo ko nag ñi nga xam ne ñooy conseil yu ko neex mbir mi nag mën naa bañ a am toppalante yéene kaay gi di réew mi quotidien wax ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ministre Antoine Diome daan nay wax ne caution bi fukki million la ak juróoma yéene kaay gi de la na xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci gouvernement bu yees bi nga xam ne gars yi ñoo ko doon laam-laamee ba léegi nii dara amagu ci te nag ci biir yi maanaam ci ministère yi gars yi nag seen xaar bi yàgg na lool lool lool gars yi saa sunu xëyee jàpp ne tay la bi nee na am na ñoo xam ne nelawutuñu ba yandoora yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Barthélémy Dias mi nga xam ne dañu ko tëjoon lu toll si ñaari ati kaso wax na juróom benn weer lay tëdd Barthélémy Dias daal di def appel waaye nag appel boobu mën naa bañ a baax ci Barthélémy Dias man naa bon loola ndax yéen kaay gi di Sud Quotidien nee na Barthélémy Dias bu ñu ko tëjee nag lu toll si juróomi ata bu boobaa nag njiitu réew mi naa jël nag ab décret daal di révoquer ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias ci nag ay fonction ci mairie bu Ndakaaru yéen kaay gi di Rewmi Quotidien san Sambo xëy di ko dëgg la ne la daloon Khalifa Sall mën naa dal bu baax a ki nga xam ne mooy Barthélémy Dias yéen i kaay gi seko xëy di ñu xibaar naan ñu événement marché ñi nga xam ne ñoo si ñàkkoon seen i mbokk ba léegi ñoo ngi sàkku yoon daal def liggéeyam yéen i kaay gi na ñi nga xam ne ñooy xeex ak ak yelleefu doomu aadama ñoom tim ñoo ngi sàkko maanaam dossier bi ñu daal di kuy ubbi daal di leeral mbir mi daal xool kan moo def ak kan moo defu la yéen i la téeméer ak ñeen fukk